allez-y allez-y. da nga bi ñëpp seetaan nga la deuxième question bi tamit la budget clip bi waaw waaw clip bi képp ku xam ne clip bi ku seetaan xam ne xaalis génn na budget clip bi la ñu doon vidéoclip bi yow boo ko xoolee rek xam ni. non laata ci vidéoclip bi ñu ñëw ci habillement bi. Ah, waaw ñoom ñoo xam formation ñoom ñoo xam maa ngi soog a dégg sax moomu formation. waaw waaw mais loolu pour aar rek damay damaa def loo xam ne pour mu pour mu aaree pour mu gën a taaral sama sama vidéo aussi que won ne que Afrique am na culture am na lu am na lu rafet. te ku ku gis culture africaine di seetaan nigérien yi wala yéen ak yéen gis ni loolu la ñuy waaw loolu dong la mais kii wag nu mu tudd sax xaw ma moo bi lan la sax lan la wax léegi faramason man ko ngi ko soog a dégg ci yow te yàlla la ci yàlla <laughs> beneen bi mooy que lan nga wax sax budget clip bi boo seetaanee clip bi xam ni du budget xale waaw boo xoolee clip bi clip bi boo ko xoolee xam ni kii foo ak kii liggéey bokkul xam ni gars yi dañ doon foo de liggéeyuñu parce waaw ah, loolu moom ay dogal la. d'accord mais ah, ci vidéo clip bi euh, gis nañu différentes personnes ñoo xam ni mën nañ jàpp ne sax ce son les ancêtres noonu lañ ko mën tuddee parce que dañoo gis ay bant ci seen i bakkan et tout ça sélection bi naka la demee ak fan ngeen ko tourné ci biir réew mi wala fan la exactement. waaw clip bi daanaka ci biir réew mi lañ ko tourné. Hmm. waaye biir mel ni am na ci réew mi. waaw moo tax def ay recherche dina am solo ci. ndaw ñi ma lancé wala benn message foofu. am na ñoo xam ne juddoo nañu Sénégal ba màggee fi xamuñu xeetu nit ñi am nañ fi wala xeetu doomu euh, dund nii nit ñaa ngi koy dund. man en bi ma demee dama am beneen découverte boo xam ni daf ma ma bett parce que lii c'était à kii Kédougou cinq kilomètres daanaka moo Guinée sorewuñu en bi dëkk bu ñu wax Dindéfello ak euh, Ouel fa laa tourné euh, clip bi mais. lu am solo ama ama am solo daanaka li gën a yokko tax sax conférence de presse bi ak euh, ma génn loolu ci la bokk mooy que message bi may lancé pour jeunes yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal barke Nabil Moustapha ndax man yonent bi lay tàgg ma koy tàgg ci différence méthode yoo xam ne bokkul mën naa ko tàgg ci comme ni ko cheikh bi waxee sànq différence langue yu bokkul wala ci xeetu musique yu bokkul ñu bari tagg yonent bi ci tabala lañ ko xamee woon wala mat mat matku ci am daaxu xasida yi mais mooy tagg yonent bi di teg instrument di ci way ba génn toog xalaat sama idée ne man clip bi dama ko bëgg a defee gine wala ma defee ko beneen dëkk suñu borom di ma taataat di ma taataat ba won ma euh, Kédougou waaye bi ma demee foofu dama gis yeneen kanam yoo xam ni pour man si àddina yàlla sàkkul ñu mel nii ma am ci beneen jàngat beneen bi mooy que ñi nga xam ne ñoom laa boole ci clip bi duñ ay jullit gëmuñu yàlla man ma tagg yonent bi indi leen ci domaine boobu ñu ñu ñu dukkat ko savouré ko ànd ko ak man kon ma defe naa ni mission bu ma ko doon dox amaana mat na waaw waaw ak as bi ma am de c'est la première fois ñu ñu ñu ñu ñu ñu accepté nit pour mu ñëw def kilip jël seen image. defe naa ci ay documentaire rek lañ leen doon gis. ci li ma yaakaar. naka nga def ba réussir loolu. mbir yàlla. Hmm. dem ba foofu dox 30 minutes à pied aller 30 minutes aller 30 minutes retour pour jot euh, eaux et forêt bi tourné foofu ba pare ñëw am ku ma woon benn photo ci internet mooy ñiy bind euh, ñuy a bind sax ñu bënn seen fii ñu leen di woowee les Bassari ñu cosaanoo diggante Guinée ak Kédougou. bi ñu demee foofu euh, raconté nañu histoire bu bu bu am solo ci ci diggante Guinée yi ak ak Bassare yi. Mhm. waa ji ne ma pourquoi pas ñii nga tourné ak ñoom ci clip bi ma ne ko fan lañ nekk munu ma deux heures de temps euh, de voiture ngay def boo wàccee da ngay dox une heure de temps à pied aller une heure de temps retour te ay montagne nga yéeg parce que ci loolu laa jaar mu jaral ma ma yéeg montagne aller une heure de temps tourné ak ñoom yàlla di di taw ma taxaw xaar ba mu sewet tourné waat ak ñoom foofu day taw par par minute daanaka day taw tuuti taw bu fort arrêté waat naaj bi génn mu tawaat ma dem foofu te bi may yéeg ci montagne yi maa ngi leen di gis ñu gàddu ay gurtu sàngara di ko yéegal ci ci kaw pour di ko pour pour di ko dundee mais man ma dem di tàgg ji yonente bi ci en tant que jeune ci l'islam dem ci ñoo xam ne gëmuñu yàlla ñu accordé ma ko avec plaisir mm-hmm. est-ce que yaa ngi ma amaana man bu ma ko nit ñi nangul man yonent bi nangul na ma ko man laaj leen dama cee jooy ba sonn mënumaa àggali clip bi parce que dama xam ni amonage mon ma ma ma décroché lii yombul moo tax loolu moom ma gën a neex pour mu mën a wootee presse bi pour ñu ñëw ñu xam ni que yoon benn yoon neexul rawatina yoon ndaw mais pour nga am ndam fallait que nga xeex pour loolu nga mën ko tàccu leen <laughs>